كليني سلمى سلميني لمالكي سأمشي لطوى خير فر ومالك إلى خير ناس خير من وطي الطراب وخير نزار خير حي والك محمد مأمون السماء رسولنا وهبت له نفتي وكل ممالكي يؤرقني ذكرى صراك بي وقد كدت أسري أو سريت كذلك سريت بروحي أقتفي جسم أحمد فتم لقاء بين ذين هنالك هناك تلاشى الروح بالجسم فانيا اصطفاني وقتي فيه بعد تالكي نبي كريم أكرم الله ñaari way juru muy siraatul mustaqim waaye ñuy coow rek ma doon gën a bëri wax waaye léegi comme gàmmu gone yi la ak ñi leen di jàppale bokk ñu dellu ci ki ñu doon jàngal mu daan wax ci gàmmu Mawlana Cheikh Ibrahim mu ngi mel nii lu ngeen ma loolu day fekk ne loolu laa gën a mën ndax jàng ko dund ko ki ko bind jàngal la ko wala ku jàngee ku jàngee ci moom loolu war nga ca mën dara Cheikh Ibrahima day wax naan. ci bisalaay sallam xale yi nga xam ne def na ko orientaliste yi ak tubaab yi dañuy wax ne lislaam doole la taxawee ndax dañ ko xataal ak di xeex nit ñi te forcé yu dugg ci lislaam bàyyi ne waaye da a juum ولكن رسول الله دار ما غزا ولكن رسول الله دار ما غزا من بلا سد عدوانا ورب جفا جفا هذا كور غير انتميدان خلقات لكن استدراك لها معنى لكن بقى عرب وخير غير تباتل la mu waxoon ca gannaaw lay wetti comme lañu yeneen ci bi xeex naag xeexut jiyaar naag jiyaar bu la xatal na nit ñi am déet bàyyi ne walakin rasulullahi dara magasin jamono li mu nekk ci kaw jamono yëpp masala jóg di xeex di jiyaar ndax kowel lislaam wala boo di gënd xataal ay nit man daara malaise la ñu ne ah kay koy limal ay xeex mu ne kon bala rabte udwaanan sante udwaanan wa rabte jafa mu ne ah noone gi ko daan noonee di ko bett di ko tooñ googu daan ca fayu rek dafa daan fayu waaye mosul njëkkee jóg rek di xeex def nañ ko lu nekk waxut dara ba alquran ñëw ne ko qaatil mushrikiina kaafa wante kamaa yuqaatiluunakum xeexal ak ñoom ni ñuy xeexee ak yow kon kooku xam nga fayu la mata bàyyi di wax naan mamin baado gannaaw yi nga nettali ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tebal tebal kab xeer waaye ata dikkal na ko dikkal na ko ayu idnin ayu jamu yu koy digal mu xeex wàcc nañu aaya day wax qitaalil kuffaar ne ko xeet xeexal ak yéefar yi wala joxaale ak ñu réer am na ñoo xam ne doon na ne yéefar lañ waaye réer ga ñu réer moo gën a bon moo tax mu ne talaa fenk na albadru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xëy na leeram ba mel nii weeru badar moo tax muy mais weeru fukki fan ak benn mu ne waaye yow ma badrin bésëb badar bi badrin cëf ñaan badar yow ma badrin mooy bés ba mu ak ñetti téeméer fukk ak ñett ci saaba yi ñu dem badar béréb la bu soree madina munawwara téeméeri at ak téeméeri kilomètre ak ñaar fukk kon Medina la gën a jege ci mag bés ba fa dem nag mooy yow ma badrin béréb ba itam mu ne bii badrin ci badar ci boppam rizatin ci xare boo xam ne moom sahaaba ya nu joom rimaal ñooy biddéw yi biddéw yi ñuy sànni mu di ay xeej ak i xett yu ànd leer ak gëm mu daal ne keroog xare Badar Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw di ñaan naan yàlla lépp loo ma dencaloon ci aw yiw jox na ko yàlla li ma dencal ci ndimbal indi ko dal di tàllal ñaari loxoom ba yàgg kaala gi mu teg ci baat bi waddee ci gannaaw Babacar for ko delloosi ko ci loos bi ne ko xasbuka al aan doy na la doy na doy na sa borom dana la dimbale mu daal di ne Babacar wax nga dëgg Jibril la nga nee di ñëw mu ngi ànd ak junni malaka yuy xeer si Asrafil naka noona Azrail noonu kon mu ngi mel ni eh, juróomi malaaka yu mag yi ñëw nañ bokk ci xare Badar ba ñëwee koy malaaka lañ yàlla di leen jàngal xeex naan su ngeen demee fadribu fawqa al a'naqi wadribu minhum kulla banaan jaas yi jaas yi na ngeen koy caw ci loos yi bos bu bopp bu dëggee rek jàmbaar jeex na waaye ay loxo yi itam bu ñu dëggee borom du mën a téye ci gànnaay kon yàlla moo ñëw di leen jàngal nu ñuy xeexee ñuy sampale xare ba naaj wi tàng lool jirim ñi ñu ngi ci biir xur wi wante beñ bu tàng la gannaaw ga ñu yéeg ci tund wi yàlla indi am ndoxam taw taw boo xam ne bu bari la su ko defee jullit biñ nekkee ci beeñ bi danañ mën a rëppatal fas di ko taxawal ndax bu doon ganus bu xóot a xóot fas yi duñ mën a daw waaye yàlla indi ab tawam mu xaw a dëgër ñu mën di dawal ak àggal. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam terewut ngi naan yàlla anjis ma waate ni yow sama borom li ma dëloon ci ndimbal jox ma ko léegi di ñaan di ñaan ba kaala gi watta Babacar jël delloo si ko ci loos fi ne ko doy na la xasbukal aan sa borom la dimbale nee mu daal di ne wax wax nga dëgg Jibril la ngay ñëw ànd ak junney malaaka Mikaayil la ngay ñëw Asraafil la ngay ñëw Asraayil ma ngay ñëw ku ne ànd ak junney malaaka kon wax nga dëgg mu ne déggal sama borom ngi jàngal malaaka yi di ñuy xeexee da leen dóor ci loxo bu loxo dëggee borom du mën a téye ngànnaay why didn't you di your loss? loos ndax saaru sax daanañuy léem naan bopp ba dagg njàmbaar jeex kon loolu la sama kan, Jadi doon jàngalee malaaka ya xeex boobu nabi sala alayhi salaatu wasalaam ak Abu Jal dal di ñëw Ibnu Hisham jógee nye wari fas ak i gëlëm ami jaasi ak i xeej ak nyari xet yonent bi ñaari ñaari fas rek la am ak juróom ñaar fukki gëlëm ñii am ay nyi ñii am ñu ngànnaay bay ne keroog yow ma badrin okasatan naslan min jaridin bi naan okasata ne yonent ma ma nabi sallallahu alayhi wa sallam karama wala mu'jiza fàq benn baax as tàndarma sànni ko ko mu soppeeku jaasi yow ma badrin bàyyi mooy wax okaasatan naala naslan min jariy kon kooku ci métti xare Badar la bala ñu tàmbali yéen damaa ngi jiitu di rëdd naan fi lay tëdd daal di ne Utbata ibnu Rabiata fi lay tëdd Shaybata ibnu Rabiata a lay tëdd Abul Baxtar yi fii lay tëdd mu ne juróom-ñaari sang yi ma tudd gëneewu ma ci kenn dara lu may yónni gi ma yàlla yónni ñoom ñëpp ci xare bii la ñuy des loolu moo tax ba ñu reyee ci yéefar yi lañ faray jàpp fa juróom-ñaar fukk rey ci juróom-ñaar fukk sa ngir Quraysh yëpp bokk ca wax na ne Abu Jahl dana dee Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu Xodar ba la woon taxawaayam mu góor bu njool bu toog ñooy tolloo bu gàttal wante ku mën alquran bu suuratul bayaan wàccee yonent bi dafa demal ba mat nga jàng fa suratul bayan wi ya arrahman allamal quran mu dem rek dara nopp yi ku neex faat la wal alquran di ko jàng di ko jàng di ko jàng ba mu jeex proche pa ne kër kër ne képp ci moom di ko xool ak li muy wax ak gàttaayam bi bu jàngal yi takk ñaari nopp yi jof ko ne ko boo demee nga ne maa di joy joy ba yàgg wau ne waaw mani du tolluwu ma ni Ali ibn Abi Talib tolluwu ma ni Omar ibn al-Khattab moo nga def ma nii ba bi ne wau rek lu say pare kela la abata ab baatam yow yaa mota dagg moo tax bañ seen Mujang Tokchikan Unai di Presa Bissangra Jibani di Mbizika Kefetch Jika nama mukontan lol Nyari puni juga cuman tanya balik nih Anak bujanya Gisok ini pungur mutua Ciprian juga upu ngomla Ini nama Hari ini kona Ini johan cahaya Bende kii na taxaw fii kii fii kii ci kanam kii ca gannaaw ñu sori ko daan la ko fette ndal ko nag kenn ci mooy bi ko fettee kii jam ko ca ko ca xol bi ci kanam kii jam ko ci xol bi ci gannaaw ci digg gannaaw ñaari fet yi dajee ñu ne ku def lii rek yi daw dañuy yëg ci montagne am ñu leen topp ba yàgg ñu ragal waññeeku moom lekkee ci dee la jëm léegi nag ba loolu amee nag nag tépp tépp jë fette yeeg xëy gunte yeeg jaas yi tépp tépp ji bari lool ba léegi mu metti lool lool kenn talatul Abu mu ngi ci sukkaraatam waaye kenn talu ko jàmm ay fette ci xol du dee léegi léegi waaye foog mu dee xale yi daw nañu foofu nag bi xare bi jeexee yéen bi ne na woon fii la Abu Jahl tëdd fii la Utbata ibn Rabiata yi tëdd fii Shaybata ibn Rabiata bi lay tëdd Abul Buxtari yi fii lay tëdd yëm kat yi bàkk bi yëpp gis nañ ñëpp dee nañu keroog Bilal ibn Rabaax moo rey Umayya ibn Xalaf dafa ñëw rek dajeeg moom yaram xeex ne ay umaya mu xool ko mu ne ko tey waray la umaya te jéem a góorgóorlu rek Bilaal sànni ko gunte ba muy épée bi dal ci xol bi rek mu daal di mu daal di ñëw nag ne yonent bi rey naa umayata ndax la ko umayata defoon moo ko jaral mu def jaamam mu koy mbugal ci mbedd mi kon nag mu xaar rek ba bépp sa badar mu def ko la léegi nag yoon kenn gisul Abu Jahl ñen ci bi na dana dee dana dee de Abdullah ibn Mas'ud di ko wër di ko wër ba fekk mu ngi ci sukuraat mu daal di fexe kalaay ci dënn bi ne ko xanaa kii la ëpp jàngalu yàlla bi mu ne ah kay mu daal di ne xaaral ma jekkali la ne bàyyi ma dénkaane mu ne waxal mu ne àddina gii may génn ku ma bañee ni li Muhammad amu fi mu yàlla xelal boo ne bañee naa ko ni Muhammad mu commencé jël jaasam cat ci baat bi mu ne ko sa jaasi ji ñëwut amul doole jël sama jaasi ndax dégg gaaw mu jël jaasi ji tànk ko bopp bopp bi xiiti xiiti xiiti ba mu teqali ko jëmm ji mu jëm ne yonent bi naa ko waaye attanu moo ko mun a jàppal ci nopp ba di ko wat wat ko ba fii mu jàpp ci nopp yi wat ko ba ñu koy du saa sallam ne Abu Jahl ngi nii mu ne waxoon naa ko fokk ci xare bi lay des kon badara boobu euh, moom xar bu métti la jàpp nañ ci juróom-ñaar fukk rey nañ ca juróom-ñaar fukk Abbas bàyyi yonent bi ci la bokkoon muy bàyyi taxam te boobu tuuragul xam nga yonent bi salaay sallam bàyyam ñi mu bokkal bàyyi ñaara ci tuub muy Abbas ak Hamza. ñooñu jóg jóg waaye ku mel ni eh, Abu Ja Abu Lahab bu koy tub tuddee ak ña ci des yëpp loolu ci natt yu ko yàlla di bi sallallahu alayhi wa sallam ne bàyyi ne moo tax damay dégg kenn ku wax ci rajo bi ne ah dañuy wax rek waaye malaaka yi dikkuñu ma ne juum nga te néew loo xam malaaka yi di koy malaaka yi alquran tudd ko ne wàcce nañu ah wax na ñetti ñetti junne wax na juróomi junne malaaka ñii musawwimiina lañ ñii murdafiina lañ nga ne xare Badar malaaka yi wàccu wàcce nañu teex nañu waaye yàlla waxoon nañu leen ne ah, xare bi yéen ko xare ak seen kàttan malaaka yi dañuy wàcce rek pour dalal seen xel waaye yéen ma tax bàyyi ne yonente bi wa kafaahu fegal na ko doy na ko nasarul ilah ndimbal waaye walakin dalal xel yi moom ak xol yi bil inzaali mu ngi nekk ci wàccu malaka yi ah saaru jullit yi mujjal nañ yeefar yi yëpp nag ah tëral mu saaraa ñu di ñu ñu jàpp ñu nekk jër-jër mu di jaam su ma xat laa topp ñeneen ñu rey keroog wa dammu deret yi doomu aadama yi ni muy sottee aljiriyaal mu ngi mel ni pour ndox buy daw ndax deret ju bari mu ne loolu nag rekki nañ rekki mooy gawar bu amoon ay ngannaay ak mbir takkoon ko nga rekki ko ci moom xayaa um حياتهم سنتندو وحياهم أكسن كرس إن لم ترحمن كي وقت وقم نبير ممكن سبل العوالي بدني قمت بغيله النبي يلين انتفي الرحيم بدي أجيرم ولا بيرم له أي أي اشتداد tar na ci yéefar yi gu mu ci tar ah lu tax in àqu waxtu wu ñu gaxee waxtu wu ñu tënkee ca xare Badar almawla kilifa dëkk ba muy Abu Jahl alkarim ki ne woon moo tedd alwali ki nga xam ne moo doon buur ba wa rabaahum te saa sallam yëmu ca de daal di bàyyi xeer mu sabbal ci loxo mu teg ci loxol Babacar mu sabbal mu loxol teg ci loxol Omar mu sabbal mu nanguwaat ya sànni ko pour mottali yéefar ya mu nekk ay ab punda ak xeer dal ca bakkan ya ak gémmiñ ya mu dëpp nitam ba dàqaleen ñoom ñëpp ñu daw moo tax bàyyi ne maamu سنين لم إنك في جتين تم لد حصيات لنحي جمراي هنا أوه وقتو يقخي يخ يتنك تنك المولى كليفك الكريم الوالي كتدون أنقور ورماهم من كفية حصيات مجل قيري سني لم قبل دون ملن سني ومن سني فاقا قل يبريك ñu ñëw ku nekk naan maa rey jiw maa rey jiw li ma def yéen tamit yéen dara maa def dara dama tibbaay xeer mu sabbal mu sànni ko mu rey fukki fukki fukki yu yàlla nag bi ñuy ndam sànni woo man maa sànni bu doon yow rek saw sànn du àgg foofu wa maa ramayta iz ramayta walakin allah rama bi nga sànnee du yow yàlla mooy ki nga xam ne moo sànni moo tax mu ne bàyyi ne bàyyi bari fi nekk ramaahum sànni na leen mawlaahum seen borom di nikkaal yi ñi ngir mbugal leen nakam bisa baral mooy bés ba ñu di xar mu mi muy abu mu ne yowma dabxi li kabshi samim bés ba ñu ren di xar mu duuf mi muy abu jaal keroog ليوم تعميد بسب سنتلا ولإلا لأب مكة أنا بدر يين يدون قيا بدر هل تعملوا دفلين ما تشاءون وينصب فحد من قدنا ورلنا وذل جلال الله قدنا وفانكم سين جبل يقيا بدر يب يلا بالنا ليه رأيين انت منه لا الله الله قد على أهل بدين فقال افعلوا ما شئتم أبك لكم منكن آه، بدر غزوة أبقى يخلى بل فصل أبقى سخ بدر كبير وبدر بدر له حين كل حروبه waxtu wi nga xam ne yëpp xeex yi ñu doon xeex ah boo koy seetlu hilaal mu ngi mel ni terute ci feeñ summa walla ba ñu gam gañee éefar yi jàpp juróom-ñaar fukk ren juróom-ñaar fukk walla dëgg la nag li taybatin jëm si madina baada hasmin gannaaw bu mun na tee yéefar yi walla baada hasmi dalika jeysh loolu mudaaf ilay mu gudd la azmi dalikal jeysh gannaaw bi mu nootee boo bala xare te kat parce que moom nekk na seen digg xayru walin ku gëm ci kilifa mu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbokk yi la ko toppale ci parce que kenn du wax ne dañuy dem gàmm ak seedoo te ci yonent bi dara waaye li ngeen bëggoon sax mu wax ci moo doon euh, topp ñaari waajur maanaam dama ko formulé wax ne topp ñaari waajur daal nekkul lu mooy mooy siraatul mustaqim yoon wu jub daal mooy gune topp ay waajuram mbokk yi tëdd yi wala maa ngi fi toog. ustaas yi borom daraja yi personnalité nit ci sécurité yi fi toog ak ñu teew yëpp ci daje bii daje mbokk la islam la yéen ñëpp la nuyu woon ca tàmbali ba waxoon Moustapha mu nuyul ma leen mu ne woon asalaamaaleykum wa wa barakaatu man nag ak ñi ànd ak man te Moustapha Ndaw tuddoon leen wala am ñum ci tudd noo ngi sant yi nga xam ne ñoo organisé waxtaan gu mel ñoo organisé gàmmu gu mel ñoo ko taxawal te di ko taxawal at mu nekk tàmbali woon ko mu doye di lool néew doole ba tey mu rëy ñëpp jot ci ak encadrement ak seen mag ñi kon mu wane jotaay bii fàttali lay doon ci xam naa ni yéen itam da ngeen rafet jot ci man rek ah yaakaar naa ne yéen yaakaar ne mën naa taxawee lu ni mel seen jot rafet na ma leen ciy gërëm ay jotaay bii jotaay jàngale la ak fàttali te mu nekk jotaay boo xam ne bàyyi ngeen seen ak jot yéen ñëpp ñëpp ne tekk kenn waxut ngir taxawal biir mu ni mel maa ngi ñaan yàlla mu may ñu wér may leen ko may leen yàgg fi itam ci jàmm may leen barke itam may nu ko may leen nangul leen li tax ngeen di joxe seen alal ci lu mel nii am na ñeneen ñuy dépensé ci loo xam ne du lu yàlla gërëm te ñoom ñu gërëm ko lool yéen nag ak seen i gune ak seen bàyyeeg na jaay yéeg ñu leen encadré lépp li ngeen di joxe ak dépense yu bari yi ngeen di def ci lii yëpp yàlla rek moo tax kon nag duñ def lu may wax yàlla moom mi nga xam ne moom ñuy wax naan am na bés boo xam ne buñ ci àggee alal yu bari du jëriñ doom yu bari du jëriñ lay jëriñ nit daal mooy dikkal yàlla ab xol bu sebet ci bokkaale nekku ci yal na yàlla defal ñu lool gannaaw topp yàlla ko yonentam gannaaw topp ñaari way jur yi nga xam ne wayjur nañ ko topp rek fee digalul laaj mooy yàlla ndax wayjur yi fee ñu ngi dund na leen toppatoo yéen gune yëpp lay wax ak di ñaanal itam bu fekkee jiitu nañ la ca yërmande yàlla mbokk yi fi teew li ma yaakaar ci yéen daal mooy rafet ak xerewlu rek ak dëggu ci wax ak jëf ak rafet éw na ak ci seen benn mbokk bu mel ni man dëkkul lu may jàmm bëggal ko ñépp la bëgg na ngeen xool ci bëtu bëggante rek ak ak bokkoo ak di kër li ma dëgg-dëgg bu yàgg waxoon nañ ne bëtu ngërëm boo ko xoolee sa mbokk di nekk ci moom ci ayib yépp da koy mëtt waaye bëtam sànja ak jëppi so ko ko ni duma defati lu la neex kon nag maa ngi ñaan ngeen xoole ba bët boobu rek mbokk yi góor yi mbokk yi jigéen yi maa ngi leen di feddali benn yoon ne li ma ko ak yéen te xam ngeen ko ci samay wax ak samay waxtaan mooy duma len wax lenn lenn lu nekk ci téere yàlla bii ak su si yonent bi alayhi salaatu wasalaam danaa léeg-léeg lenn lu nekk ci eh, waxu mag ñi fi nekkoon te gëm yàlla wala saxaaba yi wala ñeenti ngir ak ki noonu na am te bi nga xam ne wax ngeen ko muy birul ñaari way dama ne naa ko mooy siraatul mustaqim yoonu jub mooy nit topp ay waajuram feeñ ngi dund suñu demee mu ñaanal leen loolu lu tax nga koy wax lu ciy njëriñ dama bëgg a teel teew nit ñi ak gune yi ñu topp loolu ndax buñ su ma ko waxee buñ ko xamee ndax ñu topp ko su ko defee lu mel noonu di leen fàttali yàlla ak njubam yàlla wallahi yàlla xam ne loolu moo taxoon rajo Madado rahimahullahu jiital ma ci seen kanam gënuma ci dee gënuma ci la soob mu jël ak tànnam rek teg ak yéen ci lii moo tax dama leen wax mukk ci théorie bi wala mu nekk ci xadis du ma sos waxi kenn du ma ko indi bu neexee noonu la bu naqaree noonu la léegi nag bu ñu xàmmee mustaqim ak beneen yoon dana yomb ñu topp ko ci kàttanu yàlla dana yomb it ñu xamee way jur yi ban xàq la ñu ci seeni doom kon danañ ko mën a topp lan moo di aw yoon mbokk yi góor yi yi jigéen yi fi teewoo ci daje bii xam leen ne baatub yoon danañ ko wax tariq danañ ko wax naaju danañ ko wax sabiil waaye li muy tekki mooy yan moyen yan wasail yan jaarukaay danañ di mën a jaar ba àgg ci li muy wut ci loolu moo oh, di aw yoon wala mu àgg ci béréb bi mu bëggoon baatab siraat rot na ci alquranil karim ka ngi ka ngi yéen a may déglu booy seet ñeent fukki yoon ak ñeent baatab siraat war na ko ci alquran te ñett eh, fukki yeeg ñett yëpp dañ koo melal bu baatal mustaqim waaye ñeenti yoon indi nañ baatal siraatu melal ko jub muy siraatu sewi am na ñeenti yoon am na itam ñetti yoon ñu indi baatal siraatu dal di ko sant naat nag yéen ñi jàngoon tuuti ci tubaab moom la ñuy wax adjectif qualificatif adjectif qualificatif yi jaaroon ci école bi dañ lay wax ne ab baat la buy qualifier la non maanaam sifa la buy melal euh, moo bi nga njëkk tudd la koy melal bu ne sirata doo ko xam ñu ne al mustaqim loolu moo di naat ci arab di adjectif qualificatif ci làkku français mbokk yi loolu yëpp day tekki ne sirat ak naajo li ñu bëgg jaar ca mooy wu jur wi wu rek yoon wu dëng soxla wuñ ko ñàkk ormal say wajur ñàkk leen topp nag loolu yoon wu dëng la kon nag yoon wu jub bi bëgg mooy ñu topp leen wormal leen sóobu ca ndax ñu àgg fan jëm ci jàmm mbokk yi yoon wu nekk léegi nag ñu melal fa ah ñu qualifié ko ay melokaan ay adjectifs yu bari yu dul mustaqim yoo xam ne jubut loolu mooy yoon wu lemu mooy yoon wu dëng mooy yoon wu jubut même bu ñuy jàngal andasa dañuy njëkk a rëddal alxatul mustaqim mu tàmbalee fii dal di yéeme fi mooy astronomie loolu bu la yéem nag nekk naa professeur mathématique astronomie ay ay yu bari ci franco arabe loolu bokkoon na ci matière yi ma gënoon a mën waaye bref mbokk yu bëri mbokk yu jigéen bépp yoon ci àddina boo xam ne melal nañ ko ci istiqaama muy muy jur muy istiqaama kooku waxuñ ne bu rafet la yoon woowee bu jëng la. xam nga wax ni Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dong mooy kii wootee jëm ci yàlla jaarale leen ci siraatul mustaqim wutu ci nag ku ko fay dara loolu moo tax alquran di wax naan. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إن الله تسير الأمور boo seetee ay boobu yàlla wax ne yonent mooy wootee jëmee ci yoon wu jub loolu mooy yoonu yàlla te ngeen xam nag ne ala ilallahi tasirul umur loolu wallahi sama ko bëggoon fi la ñuy fanaan ilallahi tasirul umur kii doomi kii la kookee doomi kii la kii doomi kooku nga wax ba ca maamam maam maamaatam di ko topp ba ci Hawa nga topp ko ba ci Adama nga topp Hawa Adama mu jógee ci suuf nga topp suuf mu jógee ci puritam géej nga topp puritam géej mu jógee ci ñàqu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy aqal muhammadiya mooy saani insaanul wujud kii fi amoon yàlla doon la li ko ñaareel ci am ngi in a tabir mooy alxaqiqa al muhammadiya moo ñaanal ñaareel yàlla ca am nga loolee may wax nag ku xamut li may wax noonu dañ koy jéem a xame gone yi dama leen di ñaax jéem leen a xam ci yàlla dara waxuma nag caaxaan ak i tëgg ak i fecce ak rangooy course ci de Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxul loolu Cheikh Tidiane waxul loolu Cheikh Ibrahima Niass waxul loolu jéem leen a xam ci yàlla ku ne loolu ku koy omat pour yàggale ko ci yàlla su fekkee wax ji mën nañ koo waxee noonu il faut ngeen jéem a yor seen bakkan ak seen roxo ndax ngeen xam ci yàlla Alaaji Madaado radiyallahu anhu moom léegi loolu la fii nekkoon ak suñu maam ya nekkoon ak suñu baay ya di leen xamal lii nga xam ne mooy siraatul mustaqim di leen xamal boo ñëwee sax di ñaan wirda danaan ndax tàggu nga sa waajur boo ko tàggu mooy dara tàggu ko nga xam ne kon ñaari waajur ñoom itam yu foor la waaye kenn mënu dem ci yàlla lu mooy nga ànd ak ku nekk ci yàlla ba tax alquran di ñuy wax naan yaa ayyuha alladina amanu ittaqullah wa kunu ma sadiqin ragal leen yàlla te ngeen ànd ak ñii dëggu ci yàlla yéen nit ñëpp lay waxee jullit laa ko gën a jagleel xam leen ne yoonu njub mu ngi ci nga xam ne yàlla eh, melal na ko ca gannaaw lu ci gën a yitteel mooy te ñu war koo xam mooy nañu xam ca yàlla yàlla kenn du xam lépp waaye nañ ca xam dara nañu xam ni ñuy gëmee yàlla akub yonentam nañ toppoo solo si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam topp ñaari way jur yi di rafetal seen diggante loolu mooy mattal matal suñu soobu siraatal mustaqim dégg nga way jur ci bakkaar yi ñaari bakkaar yi gën a mag xam ne mooy muubiqaatu saba mooy yóbbu ñu safara ñàkk topp way jur ci la bokk kon ni ñu xam ku baax ndax loolu mooy yan wu dëng bi lay yóbbu safara naam suñu borom tabaraka wa taala moom tafal na ci dañ ko topp waaye li mu ca topp li mu ca teg mooy rafetal ci sa ñaari wayjur wa qada rabbuka alla taabudu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما آه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ومن الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا loolu mu ngi ci suratul Isra aya 29 yooyu borom bi tabaraka wa taala boole na ci juróom-ñaari ay yi ma cité léegi wala fukki ay ak juróom-ñaar yi ma wax foofu lépp lu war ab julit mu war koo def yàlla tudd na ko lépp lu war mu war koo bàyyi wax na ko digle na ñu jaamu yàlla moom daal digle na ñu bàyyi jaamu ko dul yàlla digle na nañu dimbalante ci seen diggante nga dimbale ki nga bokkal ci deret ki nga bokkal jënd eh, eh, ay kër ak ki néew doole ak kii tam kii tumuranke yàlla tere nañu yàq nag alal yàq alal moom baaxul mooy di ko def ko dépensé ci ay caaxaan ay faxaraat pour bëgg ñu wax ko naka noonu mu ñuy tere ne nan fexe ba seytaane duñ ko def mbokk borom bi tabaraka wa taala waxoon nañu ne ah bu ñu amut eh, way néew doole ñi ak miskin yi ak dëkkandoor yi ñu dimbale leen danañu doy ñu wax leen wax ju nooy ju rafet waaye tere nañu nay nag nay mooy mu mel nii dañoo jël say yoxo takka ko ci sa baat ba doo ko wàññi wàccee mukk yi joxe loolu borom bi tabaraka wa taala da ko tere naka noonu doo joxe ci bokk gi jokk bokk gi doo joxe ulama yi nga xam ne ñoo lay jàngal doo jox way ragal yàlla kon képp ku koy joxe sa alal ci joxe ko way néew ya doole la joxe ko sàkkukati xam-xam ya joxe woo joxe ko ñuy woote jëm ci yàlla ak jàngalekat yi ci diine yàlla bés dana ñëw danga ko réccu su boobaa dana lay ba pare nga réccu ko moo ci loxol yàlla rek la nekk moo koy jox ko neex mooy di oomalloo ko neex mooy ñàkkal ku ko neex borom bi tabaraka wa taala tere nañu ñu def bakkaar yu mag yi muy rawi ay bakkan dañ ko wattandikoo ak lu mel ni rëy bakkan muy xeeti ñaawteef yi ak ak ngóor jigéen ak dëngee ñaari jur ak ah, rëy ah, bakkan wa naka noonu ku ñu reyal nag nga bëgg fayu yemal ca fayu ga rek nag tere nañu nag ñu lekk alali jirim ci tooñ tere nañu itam ne bu ñuy jaay ak jënd nan maandoo nan jub bu ñu wàññi alali jaambur yi di ko lekk ci tooñ ak ak naxeel digle nañu ba tey ne képp koo xam ne mënuloo def lii la yàlla wax wala mënuloo jàng xamuloo diine ji waay waay nokki noppil Ang galing niya sa kaya pamunmon na po. Manhijang gumawa eh. Dili po diyang unapin po yang gue mau wae eh? mana itu mau eh? mau wae eh? dia glory mo mau wae pun lo lo mau coba yan yang na yala. Kana, hisap. Bakan, hisap na po. Hisap kol. yow ma yomal xiyaamati ci lépp lu ñu def kon su ko defee yàlla ñu ayee rëy rëy loo yow nit dong nga doo rëy rëy rëy ba tolloo yi waaye doo rëy itam ba koy dox si di xotteeku ku def loolu sa mujj mooy safara rek foofu ngay jëm kon mbokk ñu déglu ñu bokk yàlla xam leen ne wax naa sa diine topp soo say way jur mooy siraatul mustaqim bi nga xam ne jullit ñi ci la ñuy jaar te itam bés ba ñuy julli yëpp loolu la wax bés ba ñuy julli dañ naan ihdina siraatul mustaqim jubal ñëw ci yoon wi nga xam ne moo jub yoonu njub woowu la ñuy wut kon nag yàlla gàddul na jullit ñëpp ne dana leen jubal bee ñu dellu soobu siraatul mustaqim mooy yoonu jullit ñi waaye ñi nga xam ne dañoo jëng nag dañoo dëng duñu sóobu mukk siraatul mustaqim uhduu ila tayyib min alqawli uhduu ila siraat alhamid kooku sotu xaj la bokk jëlee ji ñëpp ñi nga xam ne gëmuñu àllaaxira ñoo ñi jëng waaw inna lladiina laa yu'minuuna bil aaxirati ani siraati naakibuun naam gëm yàlla bu wér jëng ak sukkandiku ci yàlla ak jàpp mooy ci mbubbuma yàlla gi ak gërëm ay atteem ak kattanam gëm ci xol wax ko ci lammiñ jëfandikoo ko ci ay cër ku def loolu kooku ci yoon wu jub man yaatasim billah faqad hudiya ila siratil mustaqim ali imran la kon eh, bu baag bu gàtt rek istiqamatun nan la ngay jubee ci xol ak rooxo gi mooy booy jaamu yàlla na nga bàyyi xel ne yàlla ngay gis ma ngi lay xool ci sa xol ak ci sa rooxo ga ma ngi lay yëg bu boobaa nag yaa ngi ci siratul mustaqim mbokk jullit yi ñu góor ñu jigéen ñi siratul mustaqim mu yoonu jub soobu ko yomb seytaan da jaafarankalaayu di tere nit ñi ñu jaar ca gën a jëfandikoo nag lépp lu mu am ci ay moyens pour nit ñi war a bañ a dugg ci siraatul te topp ay wayjur dimbali leen itam ah mu ne nii ab ay dañoo tardé wala mère yi dañoo tardé yow rek yaa tardé ki la ëmb la yar la teete ba nga mën a dem nga ne dafa tardé yow yaa tardé yow mi xamul dara jëy kook kon. way jur yi na leen euh, toppatoo mbokk jullit yi seytaane mooy ki nga xam ne moo ñuy dëgal rek loola waaye seytaane lépp lu ñu dëgal day fen euh, du dëgg dafa ñuy war rek yu ma niihim yaiduhum wa yu ma niihim wa ma yaiduhum seytaan illa xurura ay war rek la ñuy digal mbokk yi góor yi mbokk jigéen siraatul mustaqim wax naa ko ñëpp ñaari yaari yoon ak lu dëng lu ci nekk yàllaa nga fa boo góorgóorlu ne wujub bi ngay jaar mu dimbale la nga boo sàggane ne bu dëng bi ngay jaar ah mu ba max na nga dugg ci kon nag wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim kon nag doomu adama bu toppee bakkanam ak seytaaneem ba tànn yoor yoonu ay awu seytaane su ko defee mu dox farla ca ba topp yoon woowu ba tey yàlla dina ko dimbale mu soobu yoonu bon gis nga am njub am njubadi boo koy def day neex ba taxawee ay gone gi jigéen topp la ngay tëgg di fecc di tëgg di wecc ne yàlla la seytaane moo koy def lool rek su ko defee yow bëgg a dal rek loola baaxut te amul njëriñ amutal muñ waaye nag da leen di jàppal rek euh, fukki at balaa fukki at da nga xam ne woote boobu day seey du nekk dara nañ dellu ci yàlla nañu jaamu yàlla waaw ah, su fekkee ulamaaw yi ak xutbakat yi ak ñi woote jëm ci yàlla duñ def lu mooy di leen génnee ci lëndëm ak réer ak bew leen yóbbu ci leer ak topp yàlla leen génnee ci bakkaaru eh, toggoo ay ñaawteer ci sa xol bakkaaru xol mooy kañaan mooy ñistamu naa ko wax ndax ñu wax ko naa ko def ndax ñu wax ko bëgg àddina bëgg sa bopp rek ay jëf yoo xam ne dafa aju ci cër yi feeñ lu mel ni sàcc lu mel ni naka noonu ak jigéen ñi lu rey bakkan lu mel ni ay deret lu mel ni ak nguur jigéen ak yeneen ci xeeti mu yàlla yi ak génn topp koo kooku boo boo boo ci rek ak seegoo ci siraatul mustaqim bi nu yàlla digal ak ab yonentam alayhi salaatu wasalaam mbokk jullit yi fokk ñu génnee ñi ci yoonu lëndëm ak yoonu réer ak yoon ak yàqu fokk ñu jéem a sóob nit ñi ci yoonu yàlla wi yàlla sant te gërëm ko radiyallahu anhu kon yoon woowu nag mooy jëfandikoo di nekk ci téere bi déglu borom xam-xam yi alif laam ra kitaabun anzalnaahu ilayka litukhrijan naas min adulumaati ila nuur bi idni rabbihim ila siraatil aziizil hamiid mbokk Ibrahima la mbokk yi góor yi mbokk yi jigéen yi waaw ànd ñu bëri boo àndeeg ñoom dañ lay réeral ba nga bàyyi am njub da ngay àndal góor ñu baax ñi ne waxtu ñu ngi encouragé ma ngi wax léegi oustaz Makhtar Sow ma ne ma ne bokk nga ci exemple yi nga xam ne ku lay déglu war mu ànd ak yow ah, du réer lu mel noonu ñooñu laa bëgg ñi nga xam ne yàllaa leen tax a jóg nga xam ne fayda tijaan yi bi yitteel na leen ñi nga xam ne bëgg nañ nit ñi xam yàlla waaye am na ñu bari boo leen toppee ñu réeral la Alxuraan wax na ko wa in tuti' a man fil ardi yudilluuka an sabilillah loolu anaam la kon nag ah, ñii ñooy mag ñeeg mag ñi li leen waxoon nag yooyu loolu du mag ñi topp mag ñi loolu benn reegal dañuy topp diineeg alquran waaye duul ay ay ay at âge ah, taxul ñuy topp doomu adama mag ñeeg nangam ak nangam ak nangam ah yàlla rek kay mag lan mag alquran rek kay mag kon لو ما كنت جار وفينا نجار كم بيتوا يا ليتنا أتنا الله وأتنا الرسول وقال ربنا إنا أتعنا سادتنا وكبرياءنا متعيف أحضرنا السبيل متعيف أحضرنا الله كنا نبوك جيني نجي غور غورو يا ينتي بنينا المرء في دين خليله فليختار أحدكم من يخالل sa diir ci ngay ci ngay jaar kon ku nekk na tànn tey ki muy àndal ëllëg kon nag maa ngi indi li nga xam ne bu weccoon moom dong rek ci alquran mu doy mu nekk di am njub suñu borom ak ñuy wax naan bu leen sàkkal yàlla borom bu leen dëngee seen i wajur bu leen rey seen i doom bi ragal ñàkk bu leen def naka sa dunoon ak jigéen ñi te tëkku leen leen bu leen def ak ngóor jigéen bu leen rey bakkan yooyu bakkan bu leen lekk alali jirim di leen jox li leen bi ak matal kóolare bu leen wor bu leen wuruj na ngeen maandoo bu ngeen di jaay ak jënd wala ngeen di napp mat natt wala ngeen di peese na ngeen maandoo kon nag loolu mooy wax na ko qul taalaw atlu maa harrama rabbukum aleykum ألا تشركوا بالله شيئا هذا المرض وبالوالدين إحسان نتقص زي ويدر ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وليس الدوم غير يكر نعم نرزقكم وإياهم من يولي ورسقل ورسقل الدومي ولا تقربوا الفواحش نيوتيف متجه وفعل كل بما دار منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق أريبك أن يلا حرام المقر kenn rey bakkan wallahi ku rey bakkan ab julit te ko amul fooy jaar te doo dugg safara loolu alquran moo ko alali jirim mën ko lekk lor ko bàyyi ko fekkee da nga koy dundal nag loolu laaba laabas dencal ko ba mu mat mu kàllaf ay seede ne lii day bàyyam ak ribawoon wala ndeyam wala magam mu doonoon ko dama ko dencoon doon naa ci dimbale di ko dundal waaye lii moo ci des mbokk yi góor yi mbokk yi jigéen yi kon képp ku ñu dénk ay nit na nga rafetal dénkaane bi kon lii mooy yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañu wattandi ko nag yoon yu dëng mooy yoonu seytaane mooy yoon wi nga ne bakkaar ca ak so ak no soo tooñ nit ñi kañaan ak fo ak ca loterie loterie nationale ba ak leneen ak leneen leneen ak itam ah yéen bu ñu mën méngoo seytaane duñ ko def suñuy mbir bu méngoo seytaane ëllëg da nga dajee bëggal yàlla te da ngay perte wa man yattaxidi seytaan waliya min dunillah faqad xasira xusraanan mubiinan noonu la ko sama borom bi waxee seytaan nag moom dafay ragal loo ñu ànd ak moom maanaam ku ànd ak seytaane sa xel du dal mu ko waaye boo ànd ak yàlla nag sa xel day dal ndax allahu waliyu al muttaqina kon mbokki jullit yi eh, ñuy déglu kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wóor na ne yàllaa ko yónni lan mooy tegtal ne yàllaa ko yónni alquran yaasin wal quran al hakim innaka la min al mursalin yàlla na yaasin alquran giñ na ci alquran ne yow yonent bi yàlla moo lay yónni ala siraatal lañ mustaqim kon nag foofu dañuy xamee ne kon lislaam bon ku ko diine woo yaa ngi ci diine yi dëkk mbokk yi góor yi mbokk jigéen ci kaw li yëpp nag dañuy topp siraatal mustaqim bun añaanantee bun bañantee bun xeex suñ ku nekk na nga bëggal sa boppam julit nga bëggal sa gan nañ ko teral rek nañ wekk mag ñi nañ yërëm gune yi dañu ormal borom xam-xam yi waaye maa ngi ciy jiital ñaari waajur nañ leen ormal def ci luñ man ñoom ñoo sonn ci sa dund ba nga toll nii kon waajur yooyu bu leen leen sàggane nañu laween ci biir ci suñ nañu dimbalante ci topp yàlla ak ragal ko bu ñu dimbalante mukk ci bàkkaar ak mooy yàlla bun bañante bun joxante gannaaw bun añaanante li gën a yees ci aw ay mooy ngay tomb sa bokkam julit ba bokk rongo sax doo ko nuyu doo euh, doo wax ak kon nag nañu taxoo liggéey fàggu ci yoon yoo xam ne yu rafet la te it bu nekk mukk nag ah euh, tënk bu teey ci suñu xeet mooy ngay toog rek topp nit ñi di xaaral nag dox di ñaanaatoo ko di tàllal loxo mel ab tënk tënk bu am ay teeñ ci baatam nit ñi muy bonee loolu itam ko bàyyi bu kenn jéem a fexeel sa mbokk lu bon xam nga yàlla jël nañ matukaayam te sa mbokkam jullit nga dem fee di ko fexeel lu bon loolu yëpp ca sa kaw lay këpp alquran la wala yaxiqul makaru sayyi illa bi ahlihi kon nag mbokk yi mu ngi mel ni leeral naa tuuti ci siratul leeral na tuuti yem ci ñi ko jaar leer naa tuuti itam ci ñi ko ñàkk jaar ak leen yàlla tëkku ca loolu kon nag mu ngi mel nii toujours damay wax ne jotaayu ngoon jant bu so rek fa lay fa lay yem moo tax may ñaan borom bi tabaraka wa taala mu baxal ni baal ñu bàkkaar ya ñaan yàlla yàlla yàlla nga suturaal suñuy ayib yàlla yàlla yal na nga wéral suñuy cër yàlla yal na nga barkeel ci suñ pap yàlla yal na nga barkeel suñ njaboot ak suñuy jabar ak suñuy doom ak suñuy xarit yàlla yal na nga def barke ci suñu wërsëg yàlla ñu jëf yépp nag mu nekk ci mujj bu rafet yàlla bu dara desul lu muy dee yal na nga rafetal suñu euh, ak mujj loolu ay ñuy itam ci gëm yàlla euh, tabaraka wa taala ba ëllëg yàlla nga dimbale ñu ba ñu dugg aljanna ci def benn xisaab ndax yàlla comme xisaab jàpp la ñu ànd ak yonent yi ànd ak wali yi ànd ak saalixoon yi ànd ak mursaloon yi yal na yàlla def ñun dégg topp def bi ci yéen mu boole ñu ci ñi nga xam ne buñ déggee mbir ah, danañ ca topp la gën a rafet wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf